jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare nuñ lañ leen ko waxee tey ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Tëngéej gannaaw ak yéen nag àdduna xale bu góor boobu mbir yi nag ba mu amee ak léegi version yi daal di bari lool naka lañu ko faate ak fan lañu ko faatee loolu nag moo tax ñun waa wasaare ñu daal di ñëw ci ñi nga xamante ni ñoo di famille wam daal di gisee ñoom bu ko defee ñu indi ñu ay leeral ci mbir moomu naka la demee ñu ngi toog ki nga xamante ni maam la waaye moo yóbbu woon xale bi nga xamante ni moo daal di ñàkk bakkanam ci daara jooju dañu koy nuyu rek waaye jaale ko bu ko defee mu indil ñu ay leeral ci mbir mi naka la demee maman ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. naka la. man maa ngi tudd Asou Dieng. Asou lan ga ci xale bi génn àdduna. xale bi maam laa si moom waaw. turam naka la. ah Assane la tudd. waaw Assane ñaata at la am. war na am 9 ans kon ñu dégg que ne sa sët boobu dafa daal di génn àdduna euh, mbir moomu exactement ndax mën nga ñu indil ay leeral yi naka la demee. waa mbir mi mën naa si indi ay leeral parce que xale bi maa ko yóbbu foofu sa daara ja boole kaa ñetti xale sama benn doom ak sama ñaari sët yoo xam ne seen papa maa leen jur ma boole leen yóbbu leen sa daara moom xale bi ki ko jur ak man xale papa maa yaay xale bi bu góor bi ak yaayam maa ñoo bokk benn papp buñ jur waaw may maam si moom. sama mag it sama mag bu góorit it jur baayam ma bokk ak moom baayam ma jokk moom day baay kon axla bi mën naa wax si moom xam naa ko sa daara ja muy jàngi alxuraan weer bi bu dee mooy ñaari weeram ñaari weer si daara ja weer dee weer bi ñu nekk ni am 29 jours bu suba mooy ñaari weeram sa daara ji ma yóbbu ko fa ma bëgg mu jàng ak alxuraan moo xale yi ma fa yóbbu woon ba ma fa demee visite mu ngi si jàmm xool naa ka yaayam jox naa ko sa ma demee bu ko yóbbu foofu damay dem appel vidéo laa def yaayam pour mu xool doomam bii passé nii weer bi passé yóbbu appel vidéo laa ko def moog yaayam ñu xoolante nuyonte waaw xale bi dimanche daal lañ ma oo si fajar dimanche bii passé nii si fajar lañ ma woo saas bi ne ma kookal la ma ne ko man la Astou Dieng mu ne ma soxna Dieng ma ne waa mu ne ma dama laa soxla si daara ji de ma ne ko maa ngi ñëw daal di jóg jàpp bi may tegee satala gi di jàpp mu oowaan ma mu ne ma dama laa soxla da yëg seegoo ma ne ko yëg seegu ma de ma teg li jàpp yëpp aw yoon maa ngi feebar sax mais damaa dox damaa dox di dox ba yëgga juuti ba aw ma oto jour bañ màggalee ba sa ëllëg oto doo am wëtir amul may dox ba yëgga juuti ma ki ma soxna jeeg foo ma ne ko maa ngi si juuti bi aw ma oto man ma man day dama la doon wax ne Assane dafa noppalu ma xëy Assane dafa noppal ma ne ko Assane lu ko dal ba muy noppalu ne Assane noppalu na si daara ji ma daal di jëli si waat fii si kër gi wax ka waa kër gi ba pare waat dem jëli sama xale yi kii laa jëli ak kële ku sol noir blanc bi ñoom laa jël sa daara ji andiwaat leen fii. fekk daara ba nekkoon. kon loolu doyatuma. te ka fa nekkoon njëkk naa feebar ba ma andi ko fii loolu dara doyatuma si ma jëli xale yi andi leen fii avant Assane ñuy xam si moom dara jëli naa xale yi ba andi leen fii si kër gi. ndax bi moom moom moo ne ma xale bi noppalu na maa ngi di ko yóbbu hôpital. Ah. loolu la ma wax. sëriñ daara bi moo ne ma assan dafa noppalu maa ngi di ko yóbbu hôpital ma wàññeekuwaat si kër gi ñëw wax ko waa kër gi pa dellu jëli xale yi si bés bi dafa dem jëli xale yi indi leen fii ma am si lu mën a xarit torop parce que yaayam daf ma kaa dénk. d'accord gannaaw ba mu noppalee ak léegi version yi daal di nay bëri ñii ñu ngi naan Assane dañ kaa rendi ñii ñu naan Assane dañ kaa jam ñii leneen ak leneen ak wax ji bari lool ndax yow maamam lan ngay mën a wax ci génn ak àdduna Assane ci yan condition la génnee àdduna. li si mën a wax mooy dafa jàmbat biir bi métti depuis vendredi sama doom jëlee moo ma ne xale bi depuis vendredi la jàmbat biir bi métti moo ne ma àjjuma xale bi dama biiram day métti Euh, yaa saydaa bi yaa saydaa bi faale ko mm-hmm. moom xale bi si boppam mu ku feebar mu jógaat dem nekk sama biir day métti faalewul xale bi mm-hmm. yaa saydaa bi ci boppam mm-hmm. faalewul xale bi xam nga kii du xale magam jëmm la mu ne ma xale bi biir bi moo doon metti mu wax ko yaa saydaa faale ko xale bi dem si boppam ko yaa saydaa faale ko ñun jiiru miti lañ jàppoon ne xale bi moo ko dal moo ko génne àdduna mais bi ñu demee ba xam ne autopsie bi génn na ñu koy yóbbu hôpital bi génn ñu ne xale bi dañ koo xoj ñu am si lu ñu naqari torop am nañ man am naa lu ma naqari loo xam ne mënuma kaa sax wax. autopsie bi moo génnee que ne xale bi dañ koo xooj ba mu waaw parce que man feebar xale bi déclaré ñun ñëpp feebar lañ jàpp ne xale bi looloo ko àdduna mais autopsie bi su boobaa moo wane ne xale bi dañ koo xooj am si lu ñu naqari torop surtout man mi nga xam ne maa ko fa yóbbu am na lu ma naqari torop mënuma kaa wax doom adama xale bi génne àdduna yéen ñi nga xam ne yéen ay mbokkam dem geen ba gis ko. dem gisuma ko ba tey sama bët bii gisu ko ba tey mais maamam ji nga xam ne maak moom ñoo bokk ndey ak baay moom dem na hôpital ba gis ka fa dem na hôpital ba gis xale bi waaw naka moom. gannaaw bi nga xamante ne autopsie bi génn na ba firndeel ne xale bi dañ kaa xoj ba mu génn àdduna moom ki nga xamante ni moo di sëriñu daara bi ak ki nga xamante ni moo di yaa Seyda ñoom lan lañ wax wala lan mooy seen taxawaay. ba tey dégguma si ñoom dara. ba tey waxuñu ñëwuñu. ñëwuñu fii mais dégg naa ñoom xale góor yi doo dem ñu ne ñu nga pëlis ñu téye ñaari sëriñ ya fa nekk ñu nga pëlis ñu téye man loolu laa am si ñoom parce que ma dama feebar mënu ma jaabanti dem ak di dellu si ki nga xam ne mooy sama mag moo jur moo doom moo jur xale bi moom moo doon dem ak di ñëw bu ñu ñëwee ñoom ñoom ma naan nangam ak nangam moo fa am bu ñu ñëwee ne ma ñaari sëriñ daara yi jàpp nañ leen waaw loolu laa am si ñoom mais sama bët bi tegul ci xale bi ba tey ba ma déclaré loolu laa ma oññu ko ñëw si kër gi wax ko waa kër gi doog a oññu ko dem sëli sama doom andi leen fii si kër gi parce que yóbbu ñeenti doom delloo si ñaari doom loolu dëgg di yoon ñeenti xale laa yóbbu woon sama ñaari sët yoo xam ne maa jur seen papa ak ku ma xam ne man maay man maay yaayam ak xale bi di Assane tey dem ñoom laa fa yóbboon sa daara ja ke jëkk a ñëw muy maam Thierno moom laa jëkk a jëli moom la ma jëkk a jëli ka xale bi mu ko indee mënu dox ay jàpp ka ba xale bi ma yóbbu ko hôpital fay si 40 000 francs fay faj xale bi papaam ne ma dama xale yi man leen bàyyi leen ba weer si jàmm ma bàyyi leen bu ñu nekku si jàmm ma andi ma dama jëli xale yi ma ne ko du ma leen jëli bàyyi leen ñu jàng alxuraan nekk te yow lii moom la si yàlla tudd waaw xale bi ku nekk dafa feebar. dafa feem laa jëkk jëli mu feebar. moom 6 ans la am feebar. moo tax ma jëli ko oustaz ne ma kaa jël si ko ndax dafa tawat ma andi ko fii dox mënu ko. ngeen faral di dem ci daara ji eh, di xool yan condition la fa xale nekkee. ba visite ñu nangu ñu dugg si daara ji visite ba visite. muy la 5 fay moom la ñu nangu ñu dugg si biir daara ji mais bu dul loolu kenn du fa dugg. boo duggoon ci daara ji naka ngay fekkee daara ji naka ngay fekkee xel. nga fa duggee da naa daara ji moo gën si àdduna. macha allah boo fa duggee da nga naan daara ji dara manqué set na te da macha allah mais la nekk si biir ñun xamuñu ko la ne si biir ñun xamuñu ko ñun si kan man yéen dañuy toog rek si buntu bi la ñuy toog si biir kër gi la ñuy toog yem si buntu bi fa la ñuy boo xoolee si buntu bi moom naan daara ji moo fi gën wax dëgg yàlla parce boo fa duggee moom dara manqué fa lépp am na fa moom dëgg yàlla mais nag ne si biir ñun xamuñu ko ndax faraloon ngeen di toog ak seeni doom ñu leen di expliquer ba xam daara ji condition yaa ñu fay nekkee ndax dafa metti wala mettiwul. waaw ah, doog nañ fa nag mais xale yi waxuñu la loolu si dara waxuñu waxuñu la loolu waxuñu la ci dara dara waxuñu la ko ci loolu parce que benn laa fa dem visite xale bi bii mooy ñaari weeram benn laa fa dem visite muy weer bi passé bay dem di fay ji ci laa mës foofu xaw ma ci daara ji dara waaw ci takku la waaw waaw papaam nekku fi dafa génn àdduna papa ji wax dëgg yàlla dafa dafa doon mën si mbëkk mi ba tey ñun gisuñ ko amuñu si moom dara lu ñu leer nii rek lañu am si moom dem na mat na daaw daaw tabaski daaw du ñu bëgg tabaski si la dem ba léegi nii kenn amu si moom benn nouvelle benn nouvelle amuñu ko si moom. gaal ga moom dëgg yàlla dégguñu dafa teer parce que gaal ga ki ka yor ki yor gaal ga it ndar la dëkk waaye sama mbokk la ndax papaam sama càmm sama càmmañ la suñu ñaari papa ñoo mbokk ndey ak baay ñu dugg sa biir gaal googu. ñoom ñëpp kenn ku si kenn waa ba tey nag ñu ngi koy muñ di ko muñ loo yàlla daal waaw ba keroog daal xam ne yàlla dafa noonu si jaama bu ñu waree feeñ dinañ feeñ bu doon feeñ xam ne loolu la yàlla dogal dëgg yàlla amuñu si ñoom benn nouvelle moom waaw ba la kii oustaz bi woowee ne la kaay sa sët boobu daal dinay génn àdduna yow maamam bi nga xam ne yaa ko yóbbu woon foofu naka nga ko dundee si. metti rek parce que man bi may dem si yoon bi fee dama feebar sax maa ngi am ñaari weer ma feebar rek léegi bu ma dem sa xale sax du ma leen wax ne damaa feebar ndax bëggu toog tey gisuñu ma ñoom ñëpp bëgguma toog te gisuñu ma parce que ñoom ñëpp ma tax man maa leen di yóbbu daara yóbbu wal naa leen daara daaw puut mais dafa sori si man ma jëli leen fa andi fii moog seen bàjjan bee chaque jour ma jógee mu jóg bàjjanu Assane chaque ma jógee mu jóg mooy Daba Dieng chaque jour ma jógee mu jóg fu xale yi ne mu fekk ma fa ànd ak man ñu dem seeti xale yi ba foofu soree si man ma ne leen fii si daara ji ma andi leen si daara ji nekk te lii la fi yàlla dogal daara dogal moom dëgg yàlla ab jaam mënu si dara xanaa ñu koy sant yàlla rek te xale la xamul dara metti na nag waaye dañu sant yàlla. ba léegi euh, police waxagu leen kan moo xoj xale bi wala amagu leen ci benn nouvelle boo boobaak léegi. ba tey amuñu si benn nouvelle ba tey amuñu si benn nouvelle ñu toog daal di xaar déglu police ñu xale bi jot nañ si démb ñu toog di xaar police ba lu mu ñu jox rek ñu xam ne loolu la xale bu bu yaru xale bu yaru xale yi bu ñu toog fii di bëri sax du bëri kan moo ko mën a bëriloo benn xarit xam ne ñoom ñaar ñoo maase sama doom rakka ñoom ñaar ñoo maase si ngay dégg Assane mu wax boo gisee xale bu mu ñëw rek xamal ne wax na te ngay dégg baatam bu xale yi bëri du bëri bu ñu fodu foo kooku rek moo ko mën a bëri loolu ndax moroomam la dañu nekkee xale ba tey ñooy ànd ba ni mu toll nii ñooy ñooy ànd xale boobu tam dafa dem daara moom mais lii fekku ko fi boo ko déggee mu wax rek xamal ne kooku moo ñëw waaw waaw may jox moo de ñu am farlu si xale yi ndax ñun fi ñu dëkkee nii neexul booru géej neexul moo tax ma doon rawale sama waa kër bëgg ñu jàng am xam-xam bu ëllëgee ñu jariñ seen bopp a jariñ seen i mbokk man loolu moo ma taxoon ma yóbbu xale yi ndax man damaa xam li si alxuraan moo tax ma bëggoon sama waa kër ñu toll am am xam alxuraan man loolu moo doon sama mébét ma yóbbu leen ñu am xam-xam xale yi dañ leen di toppatoo daara yi dañuy wax daara waaye daara yi dara nekku fa daara yi li fa am léegi bu fa demee xale yi di nga leen gis ne rek mais la sa biir mënoo koo xam mënoo xam la sa biir ñu toppatoo njaboot gi ñu toppatoo jabat gi boo mën a am daara ju baax fegal sa wetu kër am na daara ju fa ne nga wàcce leen fa ñu jàng alxuraan man lii mooy li may digle sa sa doom wàccee nga gis bu gontoo nga gis bu wàccee nga gis man lii mooy li li may digal parents yi waajur yëpp ñoom laa leen di digal seen njaboot nañ leen garder parce que man li ma dal nii fooguma woon sax dina ma dal ndax xale yi ñoom ñeenti xale ku nekk 40 000 laa leen weer bu dee ma fay leen benn xale bu ne 30 000 teen yóbbu sa daara ji ndax bëgg rek ñu am xam-xam lépp ma di ko def ngir ñoom ndax xam-xam boo ko xasee ba am loo dara man li ma jàng alxuraan moo tax ma mën a lire français jàng ma fen français jàng alxuraan moo tax ma mën ku ma jox sa pataal ma lire la français waaw jàngu ma ko moo tax nag boo jàngee alxuraan dara du la si àdduna dara si àdduna loolu rek laa bëggoon sama njaboot gii ñu tegu si yoon ñu wàcc alxuraan fekk ma fii man loolu ma la daan ñaan yàlla kom nag yàlla lii la ma defal ma koy sant yàlla rek ma koy sant yàlla bu baax Assane Dieng am na 9 ans waaw jërëjëf